coowal kit alimentaire yi njiitu réew mi jébbal askan wi di wéy fii si tuuba gox bi di Touba mosquée ñoom nag ñu ngi ñaawlu lu tax li ëpp si dund si quartier bi ñu zappe leen joxuñu leen sax benn liibaru ceeb wala sax muy suukar ak yamu àndal. Euh, lii dañ ko yàgg bëgg mu naqari ni torop ñu yàgg koo programmer yàgg koo mébét waaye tey jii la ko yàlla dogal euh, lépp nag day tuuru dañoo muñ ba suñ muñukaay jeex dañoo sës mel ni ñun bokkunu ci réew mi ñun lu sëriñ Touba di woote ci jumaa ji ñu sone ñu ni ñëw leen liggéeyal Serigne Touba kenn du nu fa jiitu ñoo fay jiitu ñuy séddale ceeb bi koñ bi ni mu jigee jumaa ji ñaar ñett di am lool lu mën a ñàkk la te ñi am yooyoowuñ ko ñun gis ñu am ceeb ñun yooyoowuñ ko du dëgg du yoon loolu teguwul fenn ñun nag duñ ay ay ay ay gone ay mag yi jëmb lañ ñii nga fi gis ñëpp a yor ay ay kër sunu waajur yaa ngi nii sonn lañ def bay bëgg a dee waaw buñ ko waxee buñ ko waxul dañoo sonn. amul jigéen ñi ak waa gox bi jeunesse bi ñoo ngi nag duut baaraam seen chef de quartier mi nu jàpp ni moom moo sooke lu nu mel. di laajte kan mooy chef de quartier kan mooy chef de quartier bi fii mënuñu laa wax Baye Bass loolu tudd lijjantu waa koñ bi amul soxla ci waa koñ bi bu dara génnee mu dem opposé wu taxaw ñu lijjantu loolu dox ko mu xool yaa ma neex ya ko neex mu jox ko ak ñoom ñoom dëkkal bàyyi waa Touba Mosquée waa Touba Mosquée nag sonn nañu bés ni que tey nag amatuñ leen la ñoo xamante ne ndax kenn ku ci nekk ñun waa jeunesse bi ñun kenn ku ci nekk yaa mën a taxaw defar sa gox li ñu defaral suñu gox nag mooy xaaratuñu politicien xaaratuñu kenn ñun léegi dañuy taxaw téye suñu bopp. ndax yow di si segere ngay dox ndax boo dee dox ni ma yow kër Ibra si xamoo ko te sama maam dëkk ci koñ bi mu ni ma xooma la kon loolu mooy pire ségrégation nag. segara nag buñ ko bàyyiwul moom dara du sotti gis nga ceeb bi néew ju doole buñ ko wax bii fii benn néew ju doole la fi amul ndax doole yi ñoo tamit ñi amul doole fii néew doole amu fi ndax lekk yow mi néew doole yaa yow yaa gën a gore ab ceeb nga jox ñee fukki saako dugal ci kër ñaari saako dugal ci kër benn saako fekk kuy dañee ko fande nga teggi ko kon defuñu ko ci yoon man nag sama ngor gi laay àndal rek ak liggéey ci marché bi rek sama doom di ma yor may may sant yàlla di sant sunu gone yii nu jiite nag. gisuñu ko dégguñu ko dañuy gis saree yi dong di yab di dem. waaw seew di wulaas amuñu ko. seew diwlaas amuñu ko ndax ñu mosuñoo gis seew diwlaas man da xaw ma seew diwlaas xaw ma wax dëgg yàlla te mu ngi joxe ay ceeb bourse yi niy joxe dégg nañ ko waaye ñun ba léegi gis ñuy bourse maa ngi ni 6 heures du laay jóg nekk ca marché bay toñ-toñ ak sama njaboot bu nu xëyee bala maa ñëw fii mi di jot ma soog a lijjant lu nu togg añ que lépp nag ci sama loxo que damaa yore ay tuut tànk ay xale yu tuuti lañu yore kenn ku ci nekk da ngay daw di daanu xam nga góor di jóg di daanu xam nga ni boromi kër amu fi danoo am jom rek. gox bi danoo bëgg jël seen avenir en main jàpp nañu ni kat ñu ni amuñu ku leen mën a waxal wala mu doxal leen ñoom nag lañu gis mooy doy na sëkk dina dinañu fexe ba lépp lu ñëwati ci gox bi du jaar ci kenn. du benn politicien bu nu amal njariñ muy ministre muy député amuñu ku nu amal njariñ man dama gis damay wax toujours ni sax ñii danañ layoog suñ Tuubaa ëllëg yoomal am ndax fii ci dëkkam bii député yi ñu fi amaluñ ñu benn njariñ. moo tax toujours rek may wax ni seen bopp dong lañ fi nekkal ëllëg danañ am ak Sëñ Tuubaa problème ndax tegunuñu fenn lii dafa ñaaw dañoo jooy bay bëgg a dee sun mbedd yaa ngi nii kenn xamul lu muy nuru ñu yor ceeb bi di ko séddale ay yaama neex ceeb bi am na ci ñoo xam dañ leen koo jaay ay commerçant lañ ko jaay ñu dépôt ko ci seen ay dépôt loolu ñaaw la. ni mu mel si gox bi noonu la mel si gox yu bare si Touba di coowal dund gi nu jàpp ni daal am na ay jafe-jafe ba moo tax sax si yenn gox yi am na ay kuréel yu jóg ngir porter plainte ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yor jamono jii rek si biir Touba ñaari plainte jébagul na jëmale ko si commission de ciblage bi. ñun sonn na yan ko ñuy walo ay waay walo ay ko may walo ñun sonn na yaay ko may walo ñun